man jugal ma la s'il te plaît euh, demal ci ndooy ñu foto leen ndooy s'il vous plaît jugal ndooy ndooy taxaw leen noonu rek Cheikh defal comme ni nga tàmm di def rek waaw ñu xool waaw taxawal noonu taxawal noonu ci wetam taxawal ci wetam voilà taxawal noonu non génn leen génn leen dama bëgg ngeen génn waaw wala ñu def à trois taxawal ni waaw fi baax na fi baax na kaay kaay kaay kaay Pape Ousmane taxawal noonu waaw très bien voilà léegi buñ ko cadré rek ma def kii bi euh, fii la nii la Pape yaa ngi ci wala. <laughs> voilà mais waa moo gàtt. man ak moom ak Pape Ousmane. je pense que. Euh, euh, muy mbete ah. mais waa ji xool nii <laughs> mu demee nii. <laughs> léegi ñun naka la ñu mën def ba tool nii yow. Ah? Nicolas. ah demal àbb échelle. échelle. échelle la ban. ah boo amoon. laay est-ce que doo ñëw nga sëgg ma ma grimpé. Oh comme ça on est à l'aise. moom moo ñu arbitré moom moo ñu arbitré a ngi ma maa ngi def kii ñaari playmaker Université Club laa génnee. moom nag euh, xam nga. bon man sur le temps mais attention. <laughs> waaw léegi loo ci xalaat. attention man def naa championnat. Hmm. joué pipi. Benjamin minime cadet junior Dakar Université Club. baax na ma joué naa championnat. moom mu def ay tax tax man fooyee na ah. fooyee na bal. bul faté ñi def N1. dans le ah. talent jangé té te. déggoo ma de exactement non bàyyi ko bah, man sur le temps teg naa sama salaire de toute façon. <laughs> marché bi c'est bon. man teg naa leer du salaire mooy de jour mbedd hein? dañuy aay de. attention mais jour mbedd dañuy xam ni ñu koy ah. défé waaw ñi mën gaañ xam dañ ko fooyee dañ ko fooyee. <laughs> mais yow defoo ko yow avant ngay done pro. yow bien sûr bien sûr. ah mais après daf ko dem formaliser. très bien donc voilà il est notre invité euh, dans toi même tu sais et une version bi nga version sport ah, buñ ci administrateur sport inter donc Youssou Ndoye ngi euh, euh, voilà à tout à l'heure une page de pub.